kum euh, maa ziar ñëpp di nuyu ñëpp euh, ñëwaat ci beneen vidéo euh, ñeel élection 24 février yi nga xam ni moom lañ jëm dafa am lu yéeme loo xam ni mi ngi xew ci élection yooyu noonu ñeel carte électeurs yi ñeel centre de vote ak bureau de vote yi te sénégalais yu bari yëguñu ko donc ils sont en train de faire une fraude massive sur le dos des sénégalais parce que am na sénégalais yu bari yoo xam ni jot nañ seen carte électeur bu yàgg ba ñu notifier leen seen centre de vote ak seen bureau de vote te sénégalais yooyu noonu changé nañ leen centre de vote ak lieu de vote te yëguñu ko la preuve Kër Massar am na électeur yoo xam ni bi ñu demee di vérifier effectivement dañ leen a wax ni leen fii doo leen fi voté donc da ngeen di joxe seen carte électeur yu njëkk yi ñu jox leen yeneen carte électeur parce que changé nañ leen centre de vote te sénégalais yooyu noonu yëguñu ko woon ça veut dire que ñu bari ñoo xam ni jàpp nañ ni jour élection bi dañuy voté fi ñu daan voté te changé nañ leen te yëguñu ko soo moytuwul sénégalais yooyu noonu duñ voté le jour de l'élection la même chose également constaté nañ ko en France am sénégalais yu bari yoo xam ni jot nañ seen carte électeur ba ñu notifier leen ni leen Paris la ñuy voté te effectivement bi ñu demee vérifier du ñu voté Paris parce que changé nañ leen centre de vote mante la jolie la ñuy voté am na ay fu bari foo xam ni def nañ ko centre de vote yóbbu fa ay sénégalais te auparavant du woon ay centre de vote donc quel est l'objectif quel est le but Actuellement, ils sont en train de d'organiser une fraude massive concernant les cartes électeurs, concernant les bureaux de vote et les centres de vote te sénégalais yëguñu ko. objectif bi mooy fexe ba sénégalais yu bari yoo xam ni ànduñu ak seen candidat duñu voter Macky salle le jour de l'élection ñu bañ a ñu bañ a voter te loolu c'est fait à dessein parce que puisque am nañ information concernant parrainage bi. ñi nga xam ni parrainé wuñ seen candidat ñoom la ñuy changer ay centre de vote changer lañ ay lieu de vote pour que jour élection bi su ñëwee du ñu gis seen tur ci liste bi pour décourager leen pour ñu bañ a voter contre le président Macky Sall te loolu c'est extrêmement grave kon il faut que information bi jàll sénégalais yi dem vérifier xool effectivement ndax centre de vote bi nga xam ne moom lañ def seen carte électeur ndax Euh, foofu la ñuy voté wala déet te loolu pour ñu xam ko il faut que ñu dem ci centre de vote bi nga xam ne fa lañ bind woon pour vérifier loolu parce que changé nañ carte électeurs yi changé nañ lieu de vote yi changé nañ centre de vote yi te informé wuñ sénégalais yi donc dañuy bàyyi ba jour élection yi bam ni këtt ni jonn coow li jub ñu ni non non doo fi voté parce que sa tour nekk fii su ko defee doo ci man dara kon sénégalais yi nañ partagé information bi ku ne foo nekk nga informé sénégalais ya fa nekk ñu vérifier soit ñu woote soit ñu déplacer sur place xool effectivement ndax fi ñu bindoo foofu la ñu voté wala déet parce que suñ ko deful sénégalais yu bari du ñu voté le jour de l'élection parce que loolu lañ ci jublu pour décourager les sénégalais pour ñi nga xam ne ils sont contre le président Macky Sall le jour de l'élection ñu bañ a voté donc euh, j'incite tout le monde à vérifier ñu partager information bi ñu vérifier parce que c'est capital c'est important ça veut pas dire que jot nga sa carte électeur rek que jour de l'élection li nga voté jaa ngeen jëf maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen sant